m'arrêter sur le cas mm. Habib Diallo quelqu'un ki est extraordinaire avec Strasbourg en sélection il est timide nest pas victime tey de son comportement un peu taalibe dafa yaru trop gis nga nit dafa jafe mm. xam Habib Diallo réussit avec son club c'est parce que l'entraîneur qui est là-bas lui confiance mm-hmm. dafa am solo ci nit mm-hmm. buñ la wóoloo di nga dem ba def loo loo loo yaakaar woon ne mën nga ko en équipe nationale am na foo xam ne bu ko fa entraîneur bi tegee di ngeen gis beneen Habib Diallo parce que il perdra jamais ses qualités maintenant ça dépend de l'environnement dans Pour lequel vous, il baigne de lui mettre confiance c'est tout d'accord l'entraîneur joue un rôle important sur la performance du le comportement du joueur d'accord euh,